abonné leen ci chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen uh, balu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu bal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci xadiisu bés bi xadiisu bés bi mbokk yi day waxtaane ci matukaayu kaaraange yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal nañu ko kaaraange nag ci noon bi nga xam ne moo gëna a garaaw ci noon yi moo gëna a dangereux ci noon yi te mooy seytaane mi yàlla waxoon ne inna seytaana lakum adu fattaxiduhu aduwa nee na seytaane rek moo leen mat noon kon kuy wut noon bu muy xeexal na jël moyen yépp mu déployé ko ci terrain bi muy xeex ak seytaane na consacré moyen yépp ci xeex ak ndax moo mat noon loolu yi la yonent bi sallallahu alayhi xam ba tax mu ñuy tegtal ay matukaay ay mesures de protection contre le satan muy matukaayu kaaraange yoo xam ne suñu ko jëlee dinañu dinañu musal ci soytaane rawatina nag kaaraange ci biir kër yi mbokk yi damay njëkke jéema liir bi soog a ñëw ci jéem kay tekki daf ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xattul inaa wa awku siqaa wa agliqul baaba wa atfiu siraaja fa inna shaytaana laa yaxillu siqaa'an walaa yaftaxu baaban walaa yakshifu inaa'a fa in lam yajid axadukum illaa an yucarrida calaa inaa'ihi cuudan wa yadkura sma allaahi falyafcal فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم xadis boobu rawaahu jaabir ibni abdillah al muhaddis e, am na solo am na solo lool lool lool lool mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu guddi jotatee ba ngeen noppi ci yëngu yee kër kër yi ba dara desatul lu dul tëdd na ngeen jël seen matukaayu kaaraange ñu ne ko matukaayu kaaraange yi mesure de protection yan la mu ne na ngeen ub bool yi bool yeeg assiette yeeg plat yeeg cin yi bu ñu ko bàyyi mu ne fàng fàngaaral mais nañu ko nañu ko upp ko tëj beneen bi itam mooy nañu saañ nañu saañ bouteille yi bouteille yi def ndox ak i ay jus wala ay garab ay médicament nañu ko tëj nañu ko saañ waaye bu ñu ko bàyyi rek mu ubbeeku nañu tëj bunti kër yi ak bunti néeg yi nañu ferme les portes de maisons et des chambres bunti kër yi ak buntu néeg nañ ko tëj en même temps nañu fay nañu fay làmp yi nit buy bëgg nelaw mm, bu duggee ci néegam day fay làmp mais du bàyyi làmp bi rek mu taale naam nag bëgg nañu nit bu duggee ci néegam laata muy tëdd ci lalam na taal làmp faxas dara yi muy darab yi yëlëb wala mu faxas defe naa ne lu ama am solo la yëlëb bi sax moo gën euh, bu ko defee xool-xool ruq yeeg ruq-ruqaan yi ba xam dara luy lore nekkul ci néeg bi mu soogaa mu sooga tëdd ndax nee na li tax euh, ma sant leen ngeen ub ndab yi saañ butee yi tëj bunt yi fay làmp yi mooy soypaane du ubbi bool du ubbi buteey buñu saañ du ubbi bool buñ tëj du dindi du dindi buteey buñ saañ du ubbi buntu du euh, muri ndab moo tax sax dem na ba bool yi buñ amul kubéer bu leen tëj na nga ci galen na ci galeen bant te tudd yàlla wax ci laa ilaha illallah wala bismillah ndax seytaane yi lore mën nañu taal kër waaw boo bàyyee bool yi mu ne fàng kenn ubu leen buteel yi kenn saañu leen kenn tëjul buntu kër yeeg buntu néeg yi bàyyi làmp yi mu taale seytaane mën na la wuutu sa kër wala sa néeg taal ko waaw nga naan kër gi de dafa jekk-jekk ta tàkk kër gi dafa jékki-jékki rek tàkk te kenn xamul lu ko taal fekk càggante la kon loolu ñu bàyyi ko xel mbokk yi damay taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonewu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltiin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter ak di aimer ndax fi la njëriñ yee gën yaatoo jaa ngeen